dafa njëkk xam ne rabbu mu ne mooy ab jullit boo xam ne lu néew néew am na xàmmee nit ku gone gu amutu xàmmee mu jëm nag aw njaay àll bu ñu nee njaay àll mooy lu yàlla sàkk te dëkkal ko ci àll bi nga xam ne bu ko nit jubee mu daw jàpp ko rendi yombut faaw da nga cay sonn door koo mën a jàpp loola nag bu ko jullit ba jàmmee ba muy nàcc rek ci ko sàkk yi ñuy bëgg a wax rëbb na ko te sañ na koo lekk am na ñeen sart nag moom rëbbu bu njëkk bi mooy kay rëbb ci boppam nekk jullit dañ ma yewoon ci rendi ga nga xam ne ab jullit lu mu rendi mbaa kitaab bi mooy ku bokk ci diine yëfut mbaa nasaraan ci sarti dajee lam ren des na ko mën a lekk rëbb moom ku dul jullit rek donte daa bokk diine yëfut mbaa nasaraan la mu rëbb ab jullit bu ko mën a lekk ak donte tuddoon ci sax turu yàlla ñaareel ba kay rëbb na amu xàmmee ku màndi mbaa ko dof mbaa ko gone bopp lu fexe ba jam ko ci rab yi itam mel ne rëbb na ko du tax kenn mën koo lekk xàmmee gañu sartoon ca ren di dañ koy sartaat fii ci rëbb ñetteel mooy loolee mu jam doon dëkk ci àll ba di jaay àll nga xam ne bokk ci yi miin nit ñi ba nga xam ne na koo jàpp rendi ko lu miin nit moom doon rabu kër mel ne gàtt yeeg nag ak gëleem ak ganaar ak yu mel ne yooyu faaw da leen di jàpp rendi waaye jam leen rek ñu jamee rab ci àll ba du tax ñu mën leen a lekk bu ñu xasee xam ne lii moom ci kër gi la dëkk baaxoo dundam nit ñi bu tegoon jëfam dem ci àll ba di daw nit ñi itam baa lu mel ne muy aw nag weex ku ko jub rek mu gaañ la mbaa gëléem gu xabtalu di tax ñu mën koo jam rek mu naaj ñu daal di lekk faaw ñu jéem koo rendi des na koo setal nag ci foo xam du pàddu ba mu lot mooy lañ war a rendi moom bu daan woon ci am paxit duñ ko mën a jam rek rey ba mu dee ñu daal di lekk faaw rek ñu rendi ko mbaa ñu loj ko daañu sañ nag bu ca rendi waree ngant la tax ñu loj ko mbaa loj waroon ca ñu rendi ku bàyyi loj ga ngir ngant la waaye nag jam rek mu dee du tax ñu mën koo lekk ñeenteel bi mooy lañu rëbboo ji loola mën naa doon lu am ñaw ka mën a nàccal ni ki weñ gu ñuul waaw dootulum daas ba mu ñaw rawante na nag balu fetal moom dafa am doole yépp mënees na ko rëbboo ji ca rabee ca àll ba donga yi liggéey ci àll yi itam nañuy seetlu ne bu aw rab tëddee fàdd ko rek aw yet dóor ba mu nooy nga lekk du baax médd lay doon ndax dañuy sart lañ koy jàmme ba mu nàcc doon lu am ñaw ka waaye aw yet rek buñ ko ko dóoree ba leneen lu amul ñaw ka doonte dóor nañ ba bopp ba nooy nekk bu dee mbëtt ñuy dóor rek ba mu nooy du baax ndax yet amul ñaw ka dañuy sart jumtukaay ba ñu rëbboo mu amee ñaw ka wala boog mu wut lu amul loo xam ne ku ko jàngal mu mokkal mu jàngal ko ba mokkal nag bu dee rëbb ji ànd ak moom mu di ko jàppal rab yi moo xam xaj la moo xam muus la wala siiru wala sax bu dee rab yi naaw lu mel ne mu wut am xoob ba lu ko nuru jàngal ko ba mokkal mu di ko rëbboo la mu jàngal ba mokkal mu di ko rëbboo ci moom doon ci sax day loo xam ne xamuñu ko woon muy lu nangu ànd ak nit di ko rëbbul mel ne xeetu tene waaye moom rek tàggat na ko ba mokk ba mu nangu ko rëbbul rek baax na nañuy xamee nag ne lii mu doon jàngal mokkal na mooy bu ko nee demal mu dem bu nee ko taxawal mu taxaw bu àggee rek ci bu ko yebalee mu dem bu ko taxawloo mu taxaw rek ñu jàpp ne kon mokkal na loole nag mu jàngal ba mokkal ñu ne ko lu mu la rëbbul nga mën koo lekk am na juróomi sart yoo xam ne mooy tax la mu ko rëbbul mu mën koo lekk ba ci jëkk moom la wax ne mooy la mu ko rëbbul ba mu demee ba àgg ci moom daa fekk pàddu ya dem maanaam barab yi nga xam ne bu gaañoo rek loolu day dee fekk na barab yooyee gaañu su boobaa dina ko mën a lekk waaye bu fekkoon ne jàpp na ko mu dem ba àgg ci moom te fekkul pàddu yi benn gaañu ja lay tax mu daga na lekk mooy mu rendi ko su ko seetaanee rendiwu ko rek kenn du ko lekk sartu ñaareel mooy di ngay àndal mu la rëbbul yaa koy téye ci sa loxo mbaa boo ki nga àndal téye la ko ba nga gis nag la nga bëgg mu jàppal la ko nga yebal ko ca nag bàyyi ko mu dem bu fàtte boo ko yebal nga yéene ànd ak wax bismillah bu fekkee nag wéeroo ko ci sa loxo sëf ngóor moo la ko yoral du tee yow boo yéenee rek wax bismillah mu wecci ngóor sa defoon ko mooy li nga ko defee daal nay doy ndax loxol ki la ko téyeel mook sa loxo benn lañ nga xam ne kon loolu mu ne li ngay rëbboo ji yaa ko yor ci sa loxo téye ko ba nga ko yebal mu door a dem ci la ñuy déggee ne bu fekkoon ne moom moo jekki-jekki demal boppam daal jàppara boo doo ko mën a lekk xanaa nga fekk rek gaañuwul ci pàddu yi nga rendi ko nga xam ne rendi ngaa ko daganal waaye ndegam yóbbaloo ko ci mooy jekki-jekki demal boppam moom doo ko mën a lekk ba tey itam bu ñu sart ci da nga koy téye ci sa loxo yebal ko mu dem su fekkoon téyewoo ci sa loxo kenn téyelu ko nga jekki-jekki yebal ko mu dem rek ci waxi ñooñu du doy waaye nag am nañ ci def jàpp ndal ne ñàkk ko téye ci sa loxo kenn ñàkk la ko téyel moom du ci dara ndegam laata muy dem yaa ko yebal rek daal nay baax loolu nag ak jàpp ndal la ci muy nangoo jooju wax sart su ñetteel mooy bi nga ko yebalee mu daal dëgmal la nga koy jàppaloo rek te bañ a am jëriñ yitte waaye soo ko yebaloon bëgg mu jàppal la rëbbuwee moom mu dem di dàq leneen mbaa mu nekk fee di fo ak a cëpp-cëppi wala nga yebal ko bëgg mu jàppal la rëbbuwee mu dem gis medd taxaw fa di ca lekk gannaaw ba mu door a dem bu ko jàppee nga fekk pàdd yi dem doo ko mën a lekk bu ko jàppee nag te fekk pàdd yi demul nga rendi ko moom rendi gaa ko taxa dagan sartu ñeenteel nag mooy na ko nàccal maa li nga rëbboo ji moo xam xaj la moo xam leneen la ba mu jàppee raboowee na ko jam ba muy nàcc moo xam da koo màtt ci bëñam wala ci wexam waaye moom deret génn ci moom doonte ca nopp bala waaye bu fekkee ne deret génn ci genn wet du baax bu ko xasee nàccal rek moom doonte nàcc nàcc amul solo ca nopp bala nekk te réwiti du ko tee baax nga seetlu ne nàcc googu ñu ci sart mënu caa ñàkk doonte sax da ngaa yore jumtukaay bu amee ñaw ka ni ki ab xeej mbaa jeesi mbaa leneen su ko nàccalut du baax su doon nag jumtukaay boo xam ne amul ñaw ka ni ñu ko weesoon ci gannaaw moom bu ko nàccalee itam du baax mu ne aw yett woo xam ne amul ñaw ka bu ko doon dóor ba jëmm ca xar nàcc itam du tax mu baax juróomeelu sart mooy la mu yebal la mu rëbboo bëgg mu jàppal ko ko na fekk mu jàpp ne lu dagana lekk la doonte sax mënta dogu ne téwél la mbaa mbaa mu njaayal la mbaa nangam la na fekk rek mu jàpp ne lee mu koy yebal moom lu dagana lekk la boo doon déng déng boo xam lii nga koy yebal lu araama lekk la am du lu araama lekk bu ko jàppee bu far bokk ci dagana lekk itam du ko tax a baax bu fekkee ne yaa ngi koy yebal bëgg mu jàppal la ko dafa nekk ab lim ñaar mbaa ñett nga yéene mu jàppal la yépp kon bu jàppee lépp mbaa mu jàpp ci lépp benn lépp ngay sañ a lekk ndax lépp nga yéene woon bu fekkee daa am loo yéene woon mu jàppal la ko am ci loo yéenewut nag bu tëbee daal lay jàppal la nga bëggoon mu jàppal la ko loola kon baax na waaye bu jëkkee rëbb leneen lu bokk tëkk la nga jublu woon yow du baax ndax kon day bokk ci dañu waxoon ne nga yebal ko tëb tëb dem ci la nga ko yebal xanaa dem di dàq leneen day mel ne kon bu dee lim rek say boo yéene yëpp ndax boo yéenee lenn ca yooya nga séen lay tax mu baax rek mooy mu jóg dëgmal la nga jublu mu jàppal la ko waaye bu waaye bu jógee dëgmal lu bokk te la nga jublu woon yow doora jàll ci la nga jublu woon jàppal la ko it loolee mu la jàppal de boo fekkee pàddee dem du baax bu fekkee pàddee demul la nga rendi ko moom mu baax te laa tegaleel foofu juróom-ñett yi nga xamee ne boo yebalee la ngay jàpp loro bi mu jàppal la ko itam du tax nga mën koo lekk juróom-ñett la yoo xam ne bul ci jéem a lekk benn ba ci jëkk mooy ba nga ko ca yebal bëgg mu jàppal la ko da nga doon déng-déng ba xam lu dagan la am maanaam lu dagan a lekk la am lu dagal te lekk la day noonu faaw na la wóor ne li nga koy yebal moom lu dagan la donte sax mën daa dogg ci façon sangam la kon nag booy déng-déng ci la nga koy yebal ndax lu araama lekk la wala lu dagan a lekk la bu ko jàppee itam doonte wóor ne ni lu dagan a lekk la du baax muy benn ñaareel bi mooy mu am lu carax loo xam ne tax na xamatuñu sabab fee koy daganal moo ko rey wala sabab see nga xam ne moo koy tax a aay moo ko rey loolu nag juróomi anam la yoo xam lu ci nekk boo ko dee seet la koy tax a dagan da caata feek lu koy tax a araam ñu faral loolu nag la koy tax a araam bàyyi la koy tax a dagan bu njëkk bi mooy yow ab jullit nga nga yebal sab xaj ab yéefaritam yebal ab xajam ñu bokk ko jàpp ñoom ñaar te xamuñu ban xaj moo ko rey xamuñu sab xaj yow jullit bi wala xajub yéefar ba lu ko ci rey kon sawab fii daganal ak sawab fii araamal tase nañ te xamuñu ban moo ca wér dañu bokk aaya lépp moo ñaareel mooy nga sànni sak fet ab yéefar sànni fetam nga jam ko mu jam ko mbaa nga sànni balu cartouche ab yéefar sànni baram nga jam ko mu jam ko te xamuñu kan ci yéen ñaar moo ko jam ba mu dee kon yaa tase na ci yoo xam ne leer yu daganal leer day araamal ñu far dëgëral lay araamal ñetteel mooy xaj bi ñu jàngal te sañ ko rëbboo moom benn xaj boo xam ne kenn jàngalu ko day taxawal rek ñu tase jàpp aw rab donte yow sab xaj yaa ko jàngal ba mokkal nga yebal ko ci sart yooyee waaye xaj bi taxawal rek ñëw na ànd ak moom ñu bokk jàpp rab wa du baaxati ñeenteel mooy yow da ngaa sànni rab wi jam ko mu daanu ci am ndox xamuñu nag sànni ko sànni moo ko rey wala ndox moom daanu ci biir lab gom ca lab moo ko rey ba tey du baax ak nag boo ko sànni woon fett gu ñu tooke maanaam fett gu am tooke wala benn ngànnaay bu am tooke nga xam ne xamuñu jëmmi ngànnaayal kese la moo ko rey wala tooke la nga ca def moo ko rey ni ki li nga ko sànni am posen xamuñu nag li nga ko sànni ci boppam moo ko rey wala posen baa ko rey ba tey kon du baax loolu juróomi anam la yoo xam ne da dellu ci benn tomb rek mooy raba nga doon rëbbu jàpp nga ko waaye yaata senati yoo xam lu ci nekk mën naa jamtalu ne moo ko rey te leen la bu ko reyee mu dagan leen la bu ko reyee mu araam ñu far wéral nag araam nga bàyyi dagan nga kon juróom-ñetti tomb yi lii mooy tomb ñaareel bi dañ koo tas rek benn tomb bi soppiku juróomi xaaj nga jàll nag ci bu ñetteel bi bu ñetteel bi mooy ba mu yebalee xaj ba mbaa la mu rëbboo ji muy daq rab wa te caa waroon a gaaw a topp ndax su ko rab wa jàppee te pàddu ya demut daal di koy rendi ndax su ko rendiwul du baax bu ci yéexee topp nag nga xam ne mënees naa jàpp ne yéex dam ci yéex a topp moo tax mu ñëw fekk loola dee waaye bu ci gaawoon a topp da koy rendi kon du baax su ko wóoree nag ne moom bu gaawoon topp ci moom ak itam du ci fekk benn pàddu du ko jot a rendi mu deexal boppam loola kon dana ko mën a lekk waaye li fekk amu ca lu ko wóor ci loolu rek bu dikkee fekk ko mu dee te moom da caa yéex a topp du ko mën a lekk ndax day jàmtalu ne bu ci gaawoon a topp dikk fekk ko pàddu ya benn bañ caa dem mu war koo rendi daal di koy rendi ñeenteel bi mooy gaaw na ba àgg ca rëbboo nga xam ne bu yoroon jumtukaay rend ji ni ki paaka ba daal di koy rendi ndax pàddu ya demut waaye nag daa fekkoon mu jox paaka ba keneen te kookaa nga ca gannaaw li gannaaw ak seegut bu kooku agsee rek far fekk rab wa dee du ko sañ a lekk ndax daa sàggan ci ñàkk yor jumtukaay ji nga xamee ne moom la koy rendee juróomeel mooy daw na ba agsi ci rëbb yi fekk xaj bi mbaa siir bi mbaa leneen jàpp ko mu war koo rendi ndax pàddu yi demut bi yoon sax mi ngi pàkk ba mbaa la muy rendee waaye nag nam dencee pàkk ba moo naqaree dindi di ki da ko façon foo xam ne daal dafa naqaree fecc fecc ba yàgg-yàggaay boo xam ne rab wa daa daal di far dee sedd benn yoon nga xam ne bu ko nag yéex gaa mën a dindi pàkk ba dana ko rendi waaye nag yéex a mën a dindi la muy rendee ca fa mu ko dencoon ndax denc ba dafa naqaree dindi loolaa tax rab wa dee ba tey kon kenn du ko lekk juróom benneel mooy lu mu rëbb ci guddi mel ne jam na ko waaye mu riir ko gisu ko gannaaw ba bu gisaatee lu na mel day bul xam ba xam la mu jamoona wala leneen lu dox ci guddi moo ko fàdd duñ xam ba xam la mu rëbboo wala leneen la moo tax kon du ko mën a jëfandikoo mu wuteeg rëbbum bëccëg rëbbum bëccëg moom lu mu jam te gisu ko doonte sax bëccëg bi yëpp gis ko ba ca ngoon nga mu door koo gis du tee bu mën koo lekk ndax dañuy wax ne rab yi fàdd seen morom lu ci ëpp bu bëccëgee dañuy làqu bu guddee nag lañuy jóg di wëreeru moo tax ñu wutale la mu rëbb ci guddi mu réer ko ak la mu rëbb ci bëccëg mu réer ko gannaaw ba mu gis ko boo delloo ci arrisaala moom doon na teqale la mu sànni fett wala bal ci guddi gi gannaaw ba mu gis ko gis ca fa ko fett ga dal wala fa bal ya dal kon loola dana ko mën a lekk dana juróom ñaareel bi mooy la mu yebal mu di ko jàppal rab wa moo xam xaj la mbaa xam leneen la dafa fàdd loola mbaa mu dal ci kawam ak doole waaye taxul nag mu jam ko ba mu nàcc dañoo sartoon nàccal ga ndegam nag ak nàccal amu ci fàdd na ko rek mu daanu dee wala mu fengoog moom rek mu daanu dee te nàccul fenn moom des ko mën a lekk xanaa mu fekk pàdd yi benn demu ci mu daldi gaaw rendi ko waaye bu dul loolu rek kenn du ko lekk juróom-ñetteel bi nga xam ne moo ci mujj nag mooy mu gis xaj bi mbaa la mu rëbboo ji mu ne pët pët def noo xam ne bu ko mësaa def dafa gis aw rab moom ci bopp nag moom rëbbu gisul rab woo ba di ko yebal waaye daal gis na mu def noo xam ne rek bu ko mësaa def moom aw rab la gis wala jekki-jekki wax bismillah yebal ko kooku bu jàppee indi itam du ko sañ a lekk ndax du mën a xàmmee ba xam ba xaj bi gisoon bay pët pët yi ba mu yebal ko boo wala jàpp wala dafa jàpp weneen rab ñu ne nag bu fekkoon ne xaj bi mbaa loolee mu rëbboo ji ba mu ne pët pët yëngut yëngut bu ko xamal ne gis na rab dafa daal di yéene mu jàppal ko woowee nga xam ne moom la gis ba tax koo def ni mu def ak weneen rek wu mën di jàpp mu far yéene yëpp benn yoon kon woo mu jàpp rek dana ko mën a lekk ci sartu nag loola di menn xunti wala muy ës ndigg soo xam ne yaatuwut waaye bu dee àll bu yaatoo yaatu moom xaj bi mbaa la mu rëbboo ji am nu mu def noone ne gis na rab bu yéenee mu jàppal ko woowee ak weneen itam ci àll bu yaatu boobee bu mën di jàpp it du ko mën a lekk te sax am nañu ne ba xaj ba defee noonee pët pët yi mbaa daal def nu mu xamee ni moom mi gis na rab mu yéene mu jàppal ko rab woowa ak weneen wu mu mën a jàpp rek mu yéene yëpp itam dara du ca baax ndax dañoo sartoon mu gis raboo door ko caa yebal te moom nag ci dëgg-dëgg gisul raboo mu ne raboo we nga xam ne moom lay rëbbu su ko jamee am ca lu ca dagge rot ba tàggali ko jëmm ja mel ne mu jam ko rek tànk ba dagg wala bu dee borom laaf dagg su fekkee loolee daggee ca moom mëtul genn wàll ga te it taxul benn pàddu gaañu ca moom kon loolee dagg rot médd lay doon kenn du ko mën a jëfandikoo su jàppee raboo itam da koy lekk waaye du lekkaale loolee daggoon rot laata mu koy jàpp bu fekkee nag la dagg ca rab wa rot mëtul genn wàll ga waaye pàddu la bu gaañoo ca moom maanaam ñëkkul pàddu bu gaañu ca moom ndegam pàddu gaañu na ci moom rek la ca dagge rot dana ko mën a lekk mel ne mu jam ko rek bopp ba daal dagg bopp bi ndegam dagg na rot rek xam nañ ne pàddu dem na day lekk bopp ba lekkaale dëmm ja la ca dagg rot yées genn wàll la waxoon mu bëgg a xam le ne su fekkee la ca dagg rot mat na xaaj ba mbaa mu ëpp ko njëkk loolay dee itam dañ koy daal di mën a lekk ndax nga xam ne ne moom kàddu dem na waaye saa yoo xam ne la ca dagg rot tàggal ko jëmm ja matul genn wàll ga te it taxul benn pàddu gaañu ca jëmm joojee loolee moom mbëdd lay doon waaye nag loolu lépp kat mooy àtte bu fekkoon ne loola daa am deret ji sottiku waaye loo xam ne ni ko yàlla bindi amul deret ji sottiku mel ni njëree rek gunóor ak yooyu moom bu ko doon def lu koy taxadee bañ ne modik rendeem naka mu xëcc rek far laaf ma dagg mbaa tànk ba dagg doonte benn paat demu ca moom it du tax loolee daggee ca moom tàggalikoo moom doon sobe lépp lab na mu jëmm ja lay boole lekk waaye nag jàppal bu baax ni lii mu lay wax lépp ci lu mel noonu bu dee rëbbu moo tax muy wax waaye bu doon loo xam ne dees koo war a jàpp rendi ko moom boo ko doon dóor aw morso dagg caroot wala mel ne ganaar nga di ko jàpp rek laaf ma dagg topp la loolee moom sobe lay doon bu fekkoon ne sax loolee daggee ca moom dafa gaañ pàddu ca moom ñu jàppee ko métti bul fàtte ni waxoon nañ léegi ne aw nag sax bu weexee du tax nga sañ koo jam rek bal mu dee nga daal di lekk mën nga koo def lu ko lottal nag ki jam ko ci foo xam du pàddu door koo rendi waaye jàppal ne lu ñu war a jàpp rendi moom buñ ko defee lu gaañ pàddu dal nay médd buñ ko rendee itam du baaxati buñ ko dee dóor mbaa ñu koy xëcc am morso bu ca daggee itam morso boobee sobe lay doon léegi mu weesu woon bu dee luy ñu rëbbu moo tax muy wax loolu lu ma ta xam la li nga rëbbu saa yoo àggee ci moom nga xam ne benn pàddu ca tuguta laatu faaw rek nga war koo rendi boo ko rendi wut itam médd lay doon moo tax ñu waxoon ci gannaaw ne boo fàtte woon paaka ba mbaa kenn yor ko ci gannaaw mbaa paaka ba naqaree dindee ci fa nga ko dencoon ba jëm jë dee itam ngir loola médd lay doon soo fekkee nag moom pàddu yi dem ni ki da nga koo tiire bal mbaa nga yebal xaj bi mu jàpp ko ba nga agsee fekk pàddu yi dem moom mook loo rendi ñoo yemoo bu kenn jamee aw rab maanaam mu di aw rab bu yow nag nga agsi yem ca yor nga loo ko rendee mën nga koo rendi nga seetaan ko ne bañ koo rendi ba mu dee fekk na pàddu yi demutoon kon dañ jàpp ne médd na waaye dañ koy xayma nga fay borom rëbb wa xayma ja ndax yow yaa taxaw seetaan ko mënoon koo rendi te rendi woo ko ndaram yem nga ci aw rëbb woo xam ne keneen na ko rëbb yow rëbb woo ko waaye pàdd yi demagut ren rek moo ci des te rendi ko moo koy tax a baax yor nga jumtukaay rendi mën nga ko rendi te defoo ko dañuy jàpp ne yaa ko war a fay xayma yi rëbb woowee bu waa ji ñëwoon far ko jëfandikoo lekk ko it xamu ci woon dara it dañuy jàpp ne médd rek la lekk te médd amul xayma tu tee yow ma gisoon rapport pàdd yi demut nga mën koo rendi te rendi woo ko da nga ko fay xayma ja lu nuy doon doon nag aw rëbbu dagam àgg na ci jekku nañ ko ca padd yu demut xam ne ren rek moo ci des ku nekk ci diina yoxoot mbaa nasaraan mbaa gone sax bu ci yemee noo ne man ko ren te rendiwu ko daal di war a fay xayma ja ndax bu ñu nee lu ab yéefar rëbbu ab julit da ko mën a lekk lii moom ab julit da ko rëbbu ba mu àgg ci ñu jekk ko war ko rendi yoxoot boobee nag mbaa nasaraan boobee yem ca man ko ren te rendiwu ko ñu jàpp ne kon moo war a fay xayma ja borom gone it noonu la lislaam dafa jàpp ay doomam ñoom ñëpp kenn ku ne yaawee ci sa morom ca fa mu war a taxaw nga taxawal ko fa saa yu jullit borom bee bakkan mbaa alal joo xam ne nar naa laatu su ma nee taxaw temm def ca lu ko tee laatu mu seetaan ko rek moo war a fay bu dee bakkan mooy fay diya dañu war a fay ci bakkan kenn du ko rey sax waaye ndegam seetaan na bakkan bakkan ba dee moo xam mënoon na caa wax ba mënoon naa joxe alal ba dee su ko rey mu seetaan nag ba ñu rey ko faaw mooy fay diya ja bu dee alal itam mu mënoon a taxaw temm ci mu bañ a laatu mu seetaan ko ba mu laatu borom ñàkk ko dañuy seet bu dee lu ñuy peese mbaa natt mbaa wàññi mu fay lu toll noonu borom bu dee nag loo xam ne kenn du ko peese kenn ko natt kenn du ko wàññi dañ koy xayma rek ñu seet xayma ja fu mu toll mu fay loola. nga seetlu loolu ni mu yaatoo muy bakkan muy alal boo ko rombee rek mu nar a laatu bul ne man moom mu ko saa yoon nekku ci bu dee ci àtte bi lislaam moom bakkan bi nar a dee mbaa alal ji nar a laatu. boo mënee def lu tee ñu rey bakkan boobee defoo ko rek yaa ko gàddu bu dee alal it mu nar a laatu boo ci taxawul rek te mën caa taxaw yaa ko gàddu bu fekkee boo ci waxee mu lijjanti ko war ngaa wax bu fekkee day aajowoo jëf nga jëf bu aajowoo sax joxe alal nga joxe alal te nag luñ bëgg bu amee ñu delloo la alal jooju nga ci joxe woon waaye nag bu seetaanee ba ñu rey nit te mën naa fexe ba dee su ko rey ci wax baa jëf te defu ko it dee jë maanaam lañu war a fay ci ku rey bakkan lay fay waaye du tax nag ñu fayu ci moom mel ne moo ko rey ci dëgg-dëgg